gën a ngand kenn tëju leen parce que décidé wuñu tëj leen non attends suñu posture xam nga lu ñu war a nekk il faut que ñun ñu war a génne suñu suñu posture ñun citoyen sénégalais mooy ñu génnee suñu xel ni ku dugg ci kaso tegee homme politique mag président de la waxuma la Macky Sall mais président de la République xam nga loolu c'est la normalité mooy normalité mais quand un président de la République sort publiquement et dire j'ai mis le oui sur des dossiers. C'est des erreurs de non c'est pas des erreurs de communication c'est une réalité dans sa tête. non mais dégg nga kii naa de communication. c'est pas une erreur de communication. c'est-à-dire kii loolu warul nekk. on le président de la République mënul tëj kenn mënul libérer kenn. voilà mais le problème. mooy li libéré ma wax. la jonction entre le procureur et le président de la République elle est directe par l'intermédiaire du ministre de la Justice. ces réformes-là on en parle depuis très longtemps. ne ñu libérer procureur bi mais personne n'accepte de le faire. mais xool conseil supérieur de la magistrature. léegi chaque deux semaines chaque deux semaines on change des juges on affecte des juges ah. et puis yow mi nga xamante ne citoyen lambda tu vois da am lecture claire ci jeu bi. léegi bu ñu wax bu ñu bu ñu jógee ci loolu bu ñu déggee ci loolu léegi man la man ma ma mon éternelle question vous êtes d'accord pour la séparation des pouvoirs. monsieur. non la séparation des pouvoirs. moom laay laajte chaque jour c'est mon problème. Hmm. à réaliser. xam nga euh, la séparation des pouvoirs John Locke moo ko njëkk a théorisé mm-hmm. en Angleterre mm-hmm. après Montesquieu l'a repris dans l'esprit des lois mm-hmm. l'esprit des lois mais Montesquieu ne parle presque pas de séparation, séparation il parle d'un pouvoir qui limite le pouvoir donc il dit que le pouvoir est tellement important il est tellement lourd qu'il faut mettre en place un pouvoir pour le limiter et justement notre problème là qui est en train d'arriver avec la réforme constitutionnelle. Mhm. il y aura plus de pouvoir pour limiter le pouvoir. Ah, donc mhm. de façon automatique. on va créer ce qu'on appelle mhm. ah, on va créer un monstre qui va faire ce qu'il veut. si jamais la loi passe. ah bien sûr si la loi passe on entre dans un. régime despotique. Bien sûr, le président mmh. qui peut dissoudre l'Assemblée nationale ah, quand dans bon un Comme bon lui semble. Parce que les régimes despotiques sont caractérisés par l'existence d'un individu qui a le droit de vie ou de mort. C'est le leviathan. Le le leviathan. C'est extrêmement dangereux cette, mm. modification. Ouais. Te amul, quand tu regardes l'exposé des motifs, mmh. ça n'a pas de sens. L'exposé des motifs ne te donne pas les aboutissants de la loi daf la naan pour des questions de rationalité rationalité et pour harmoniser les rapports entre l'exécutif et, et, le législatif. législatif nous allons modifier l'article 87 mmh. ce que les gens ne voient pas c'est que cette histoire se prépare depuis au moins trois ans hmm? ah bon depuis au moins trois ans quand on a fait la révision constitutionnelle pour ramener le poste de Premier ministre, hein, mmh. le titre c'était Retour du poste de Premier ministre. Les gens étaient focus là-dessus. Surtout. Dans la révision, ils ont modifié l'article 40 de la Constitution qui empêchait aux suppléants du président de la République empêchés de dissoudre l'Assemblée nationale. waxaat ko euh, honorable tey en wolof non non il était. Euh, ma waxaat ko en wolof. waaw article 43. bi ñuy modifier constitution Sénégal pour delloo si poste premier ministre. waaw dañ supprimer woon poste premier ministre après ñu delloo si. waaw bi ñu koy delloo si xam nga dañu waroon jël constitution bu yàgg ba rek indiwaat. Mm-hmm. ñaari at lañ ko def xaw ma ñetti at. Mm-hmm. mais dañu dugal ci réforme bi modification article 40. article 40 da lay wax en cas de suppléance mm -hmm. les articles tel tel tel dont l'article 87 ne sont pas applicables c'est-à-dire le suppléant ne peut pas user de ces articles là la mmh. suple kii kii wuttu président de la république ñetti weer yi président assemblée nationale mënul dissoudre assemblée nationale mais tey constitution bu bees bi yi ñu am bii article bi bii dañu soustraire article 87 ci champ d' application. ah mooy mooy le suppléant du président. le suppléant maintenant peut dissoudre l' nationale. Hmm. kon kay assemblée man bi ñu ko fait un amendement. à l' même les députés moi j' étais membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. bien sûr loolu ma na mis en terrible discorde avec tous les membres du groupe parlementaire mais même les députés de l'opposition avaient voté contre mon amendement. donc ñu ne. kiy wutu président de la république ci ñetti weer yi nga ko jagleel pour mu organiser élection bu ko neexee mu dissoudre assemblée nationale bi ma ko waxee le ministre de la justice actuel gars yi posé nañ ko question mu càng mu ne ah de toute façon lan mooy problème bi si le suppléant dissout l'assemblée nationale où est le problème <laughs> maintenant un pouvoir que le président n'avait pas waaw maintenant ñu ñu jël article 87 bi tey bugg a dindi deuxième alinéa bi mm-hmm. parce que article 87 daf naan le président de la république mun na jokkoo ak président assemblée nationale ak premier ministre ba pare daal di supprimer assemblée nationale. oui le président de la république peut, peut waaye, après avoir recueilli l'avis ah, du de l'assemblée nationale prononcé mais cette dissolution ne peut pas intervenir dans les deux premières années de la législature. waaw dans les deux premières années ñu dindi ñu dindi président de la république mhm. saa yu ko neexee mu dissout assemblée nationale. saa bu ko soobee. ñu ne prétexte bi pour lan la pour ñu boole élection pour ñu rationaliser mais bu ñu tey ñu dem deux mille vingt quatre ñu def élection ñu indi assemblée boo xam ne président bi toog assemblée boobu neexu ko méngoowul ak lim bugg mu dindi ko dissout nga voté nga teg assemblée bu ko neexul mu dissout ko. nit ñi ne loolu mënul am nit ki mënul dissoudre dissoudre dissoudre ma ne leen tant que yéen a ngi koy jox possibilité bi mun na ko def lu tax lan mooy aboutissant yi lan mooy aboutissant yi pourquoi on veut donner au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment man ci loolu lay oo nit ñi réflexion boobu laay oo nit ñi mm-hmm. lan mooy intérêt nit koo xam ne six mois moo la dese à la tête du pouvoir mmh. six mois mmh. nga war a travailler à consolider ton bilan pour que mmh. ki lay sa candidat bi bi ngay am dans ton camp mun ko utiliser pour dem élection yow ngay def une modification aussi dangereuse pour le pays ça veut dire que am na am na loo ciy wut am na loo ciy wut si les gens ne réfléchissent pas sur ça en lii bu jàllee soxlaatu ñuy fal député. jaratul ñu am député. mais sur les principes sur les principes man dama mës a contre ñuy ñuy ñuy laal ay constitution bu réew quoi man sur les principes. parce que c'est des combats yoo xamante ni il faut accepter qu'on a qu'on a mené depuis tout le temps dans pays là qu'on de toucher à des constitutions parce que euh, loolu du du du du taaru réew. Adama non seulement non seulement on touche la constitution quand on veut. mais li ngeen xamul mooy que ne il est plus facile de changer la constitution au Sénégal que de voter une loi organique. Ah comment mmh. ça. Mmh. il suffit d'avoir trois cinquièmes des suffrages exprimés maa ngi dégg ñu bëri di wax su su kii majorité qualifiée c'est pas la majorité qualifiée la majorité qualifiée est requise dans un seul des votes de l'Assemblée nationale c'est quand on met en place la cour la haute cour de justice pour modifier la constitution il faut trois cinquièmes des suffrages exprimés hmm? maanaam bu sept personnes présent yi assemblée nationale j'aime bien le sept la parce que du Doudou Wade moo koy jël en référence mm-hmm. Mm-hmm. parce que nee na assemblée bu amee sept personne mun na siéger sept personnes yooyu ñooy ñan mooy président assemblée nationale mooy ñaari secrétaire élu yi nga xam dañu war a toog mooy rapporteur commission bi présenté loi bi président commission bi ak ñaari vice président yoo xam ne mënuñ def assemblée te siégé wu muy sept personnes trois cinquièmes de sept c'est quatre donc ñooñ bu ñu dajee foofu ñu indi loi bi cadre yi ne waaw loi bi jàll ñu modifier la constitution de dix-huit millions de Sénégalais et ça c'est l'un des pièges qui a été introduit en 2016 lors du référendum kenn gis ko woon hmm. constitution kenn mënu ko foyee noonu quoi ñun nag bon ah yomb na daal en tout cas. on fait ce qu'on veut. et ni ñu koy expliquer nii ñun suñu bopp ñun suñu bopp on on ne va pas au, au fond des choses. je suis sûr que y a des députés même yu nekk repre ñu ne dañu représenter le peuple xëy na maîtriser wuñu sax exactement sama li ma ci dégg ñëpp ñi ci jot a wax yëpp il parle tout ñoom ñëpp ci affaire loi 87 ils te disent oui bu boobaa président bu ko neexee lu ko neex lay def mais. y a beaucoup de détails yoo xam ne bu ñu ko gënoon xamal nit ñi euh, peut-être que dina dina xaw a changer un peu la vision des choses je disais tout à l'heure que ça rappelait le 23 juin. Oui, ça ça le 23 juin. mais est-ce qu'on aura le, le scénario le, juin on avait un président élégant. Ouais. qui avait autorisé la manifestation. et aussi une opposition qui avait fait un tapage. Non, médiatique non parce ça que bii nii xam nga bii nii ñu bëri ñu ngi laajte. ba tey ñu ngi laajte lan moo xew assemblée mais bële da opposition bi dañoo taxaw temm daf ci benn campagne médiatique. Birama dafa gaaw c'est-à-dire. bi procédure temps bi temps bi am. Mhm. moom la temps moom la ñu am fii une semaine. procédure d'urgence 23 procédure d'urgence la woon. loi bi vendredi la ñëw assemblée nationale le 14. procédure d'urgence mooy euh, te sànq am na ñu ma ñu ma laaj ma ne ma leen koy expliquer ñu ne ma est-ce que tey la loi va passer ma ne leen tey il se passera rien. ouverture de session la ñu ouvert ubbee session bi. pour wane rek que ni <laughs> mariage suñu direct bi jeex na ah. yëg koy lever après kii direct bi jeex.